أعوذ بالله الشامع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 ci émission bi ñu naan taaw junne yi ñu fas nuyu ak moom rek Cheikh Cheikh sëriñ bi ziar nañ la. Ah, soxna si ñoo ngi lay siyaara bu baax a baax ah, di jël si nuyoo beeg siyaar bi yëpp di ñaanal sëriñ Mountakha yàlla suñu borom yàggal fi lool te mu ànd di ñaanal sëriñ Sidi Muxtaar yàlla na suñu borom yokk leem tànn si barkeem di siyaara bu baax sunu yaakaar tey ëllëg mu sëñ Babacar mu kàbbaroo na nga koy siyaara bu baax a baax. di siyaare bu baax it doom ju teet ji nga xamante ni ginnaaw yàlla moom lañ àndal ñëw ci bis bi mu sëriñ Amidou Mbacke noo ngi koy siyaare baax di ko beral ak sant bu baax a baax di siyaare rakkam ju baax ji nga xam ne moom it mu nekk rek mu nekk fa ak moom muy sëriñ Sidi Mbacke moom it noo ngi koy siyaare bu baax a baax di leen siyaare baax yi ñi nga xam ne yéen borom émission bi ñu ngi leen siyaare baax di leen ñaanal suma defal leen jàmm baax te wéral leen ci barkeb Sëriñ Tuubaa waa gis ngeen Cheikh Diop la ñu fas yéene waxtaanal tey ci émission bi ñu naan taaru diine ji ànd ak moom dañuy waxtaanal moom incha allah rabbi waa sang bi kañ nga dugg ci tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam. ah yaakaar naa ne tagg yonent yàlla Muhammad de mën naa ni damaa judd rek nekk ci ndax sama waajur yi nga xam ni moo meññ waajuram moom ci waa kër Cheikh Ibrahima Fall la ndax su ma juumut mës naa toog ak moom fàttali ko. mom mu ni mi ngi mës naa Cheikh Ahmadou Bamba mako gisse won ci jumaay ndiarim neena bokku nit ñi nga xamanteni daan bokku di liggéey sorol Touba bi nga xamanteni mom ñu wax Lamfal bobu jamon joy ñi nga jëlé béton bi ak souf gi ñu ko daan jëlé fi ñi wax naan ñaari Baye Fall fa lañ daan jëlé béton bi diko diko diko diko def ci ay suuf di waxu diko indi bir Touba kon mën na ni tag yonti mom dama judd rek nek ci ndax sama waju goor rek daan def. ah ko donc do bëgg wax da nga sa bu goor waaw dama ko doon sama waju goor kon moom waaw daanaka ci lépp ma xam moom laa ko xamee te it boole ko daf maa boole tamit ay kilifa yu bari ñu dem gën jàngaat gën a xamaat ndax dañ naan lu baax moom du doy te boo ci nekkee daanaka lépp loo gis lu baax la rek da ci ànd ak moom yàlla mi dayatewut nag boole maag euh, sëriñ Amadou Mbacke di doom bi sëñ kër mu kàbburoo daanaka lu bare bare bari li ma xam ci àdduna ginnaaw yàlla ci moom mi laa ko xamee ndax lu bare bari gérer ko sama diggante ak moom gis ngeen euh, nee na tagg yonent bi alayhi salaatu da ko doonee ci papaam macha allah am na solo waaye sëñ bi euh, si fan ak fan nga ko jàngaat ndax dama dégg sa biir wax nga ni am nga feneen foo jaaraan ndax du doy. waaw xam du doy boo gisee man am na feneen fu jàngaat ndax euh, man juddu naa ci nekk ci waaye dama àndaat ak gars yi nga xam ni fu ñu ma dégg ab jàng rek dama ci ànd ak moom ku ci mel ni El Hadj Serigne Cheikh mbaay Mbaye mi nga xam ni mooy sama lépp. lu ma xam ci am njàng mën naa ne ci ginnaawam jaar naa ci moom lu baree bari ba fi mu toll nii sama tur sax li ma koy dégg bareetul ndax fu ma nekk Cheikh Diop Mbaye Cheikh Diop Mbaye lañ may wax te ginnaaw yàlla nag loolu moo ko toqante su ñun boole ko tamit yaatu ba pare yërëm ñu ñu ànd moom ci baas yi ba yàlla dogal lii mu dogal tey gis ñun waaw. macha allah euh, dañuy dugg bàyyi rek nga taggal ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci bind suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما لم يبدو مثل المستوى محمد سرا وجخرا في البرايا سمدا لم يبدو مثل مصطفى محمد سرا وجهرا في البراء يا سمد مدلنا الإسلام والكفر ما وبنزيعات لكل زمان يقود بالسائر والباطن مال أتى أقول لله في كل زمان خدمة عن القيوب أصخبات ولي سخامة وصفا وخبات لبان كون المستوى رئيسا لكل من خفض له راسا خل خدما فوق كل رقبة من سخار خر كل من خبا محمد مثاله لم يات في محمد وعبدا لا يات سبحان ربنا لم يريد مثل الله فمثل لا يريد لو سيادة لو البراخة يوم لسو ولد سبا هو النبي والرسول والخليل وهو الخبيب والإمام والدليل براء خبدي من غير جمال وسنو خدوس عن خير كمان كل النبي المنتهى محمد غير الورى المختار إن دسم دل المختار سيدنا وبالمقام والأغلي والولداء دمي وأغلي وأولادي في دولو عبد الخديم الله مساني سندا حمدي وشكري لمن كل بسارة لوردا دون سقوط إن سرسارا لو سنار ورنوان بلا سخات مسخد لي من بني ديمان أنسارا لله كل لدى أبار مكرمات من أرتانا وفي عجام أنسارا إن الذين إلى سرسارا قرقصدوا سيارة الفرق دارنا وسارة سبحان ربك رب السماء يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين borom Tuuba amin yaa rabbal alamin mi ngi noonu eh, di bindu suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul nga xamante ne Cheikh Diop moo ñu ko doon dëgtal nii est-ce que mën nañoo xam li nga doon wax lan la waaw xasaayit gi ma njëkk a jàng moom nañu wax lam yabdu lam yabdul misul Moustapha Mouhamadin nga xam ni sëñ Touba bi mu nekkee ca Gabon am na fi foo xam ne nekkoon na fa doon fa doon fa tagg yonent yàlla Muhammad ba maam Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam maamu Serigne Sidi Mbacke mii ma nekkal ak maamu Serigne Amidou Mbacke mii nga xam ne nii mooy sama kilifa fekk na ko foofu noonu bi mu ko fekkee ñu ne ko kat am na kilifa gu mag goo xam ne nii de moom da day faral nekk fii di di di jaamu yàlla benn tubaab moo ko wan. nee na maam Cheikh ne bi mu ñëwee fekk sëñ tubaa ci néeg boobu moom muy tagg yonent yàlla Muhammad nee na dafa dafa ñëw fekk sëñ Tuubaa di di di di di taalif xasaay gi la lam yaddu mooy bi ma doon jàng léegi. nee na bi muy jàng lam yaddul Moustapha Muhammadin di ko jàng di ko tari di ko di di ko bind di ko bind di ko bind ba yegg si huwal nabi wa rasulu maam Cheikh Cheikh Anta Mbacke daal na tëll bunt bi. suñu borom si sëñ Tuubaa ne ko suñu borom moo ma xamal sa ñëw fii fekk si ma fii mu ne ko Cheikh Anta Mbacke mu ne ko Mbacke mu ne ko damaa bëggoon ñaan suñu borom li ma dese sama dund gi ma toog fii jaamoo ko yàlla ndax suuf sii ma nekk jaamu yàlla dal na li ma ci bëgg a def mën naa ko def maam Cheikh na Mbacke ba mu daal saa am ne ko Mbacke mu ne ko Mbacke mu ne ko Mbacke mi ñetti yoon mu ne ko suuf see di Sénégal de namm na la te képp koo xam mës nañ la faa jëlee yóbbu la doo dellusiwaat te boo jaamu yàlla fii te dil siwaatoo tubaab bi de dina yemaleeg ni ñu yóbbu woon te ñëwuñu suñ suñ suñ tubaab ne ko xaam laaj ko suñu borom ci la daal di jël alxuraan daal di koy yër daal ci yem ci aaya gu naan wallaahu yudduxoo ilaa daari salaam mu ne ko Cheikh Anta Mbacke mun ne ko Mbacke mu ne ko suñu borom nangu na sama sama dem waaye su ma ñëwee ngan googu may le daal su laa koy defee loolu moo waral euh, wax xasaayit googu noonu suñ tubaab loolu loolu taxaw mu taali ko foofu. macha allah am na solo gis ngeen uh, bind boobu nga xam ne suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moo ci doon tagg yonent bi alayhi waa seen Cheikh uh, yow si tagg yonent am beneen métier bul tagg yonent waaw man nag yàlla def na jàng naa métier ba yor sama palaat bi ci liggéey muy métier tailleur daanaka sama waajuru góor sax danaan jàng xasaayit waaye métier tailleur la yoroon nekkoon ci boole koog liggéey bi boole koog njàng mi. waaye sëñ Tuubaa moo amut moroom ndax moo ni ij aru jooy ilaa xaw mi saxaat naa war tag fi naa yoma jami xalaqi niraana waxoon nag sama dellu Sénégal na doon texeeg mbindeef doomu aadama yi sëñ Tuubaa ku nekk ci moom rek day dem bu mujj gi lépp loo yoroon da koy mujj jël ndax sëñ Tuubaa moo ne xes di di faaxar xasaay del kiraam wali taxuuda aw dan xeera maraam del faj aajoy jaam ñi jug di ma liggéeyal lu ñu soxla da ko defal kon ñu ngi ci métier mi waaye ñu ngi ci njàngum xasaayit gi te it njàngum xasaay gi tamit bu demee tamit bu ëpp doole suñu métier suñ tubaa jaral na ñu bàyyi suñu métier topp njàngum xasaay gi ndax liñ ci mën a am ci liggéey suñu borom ak liñ ci mën a ngir jaamu yàlla mënuñu ko am fenn ci xasaay lañ allah dégg euh, ba léegi ñu continuer waxtaan bi rek euh, programme bi da ngay faral di sa programme bopp wala daayira yi ñoo lay woo pour nga leen di jàngal. waaw ndeysaan li nga wax tamit dëgg la waaye wolof day wax naan ku amut wéeruwaay rek yomb ba max ndax señ bay jaxate wax na ko neena am kilifa li am solo so kay me am nga solo boko amon amul amo solo te ku wéeruwul yomb max xayna bari nañ ay soppé bari nañ daayira ñi dem yo xamne dañu am bis duñu ko wax waye ñun suñu way dafa nek señ amadou mbacké ba tax na ñun bu ñu mën a ak ku mënti doon ba ñu sikki jéego dem fenn dañ ci waxtaan ak mom ndax li ñu nek diko def dañ ci bëgg am ci ngeureumal señ Touba bëgg ci am ngërëmu Cheikh Anta Mbacke borom Daaru te sëtë mi nga xam ne ñoo fi nekk maanaam gën a jege seen i maam ndax dañuy sëtë doonu maam daanaka bu ñu bëggee dara rek nekkuñu fu ñu woore ñu daal ni bërëb daal di fay dem ndax lu amul encadrement mujjanteel gi mën naa xaw a sew waaye moom mi nga xam moom la ma yàlla boole muy sama sëriñ di sama kilifa di sama lépp fu ñu mënti woo balaa nga faa dem donte joxuñu ma dërëm it naa ko ne ko mbàkke mën nga dama war a am béréb sàngam moo war a dem su ma joxee ndigal ma daal di dem bu fekkee joxu ma ndigal ma daal di toog ndax ñun murit moom macha allah nee na murit ndigal rek lay jëfee macha allah am na solo ci wàllu programme yi xamante ni mu ko waxee am na solo foofu noonu mais sang bi yaa ngi génne album wala da ngay nekk dem ci daayira di jàng rek wala ngay yaa ngi pare pour génne album. waaw waaw fi mu toll nag ñu ngi ci wàccaay di génne ay album album nga wax. ay album waaw ndax li ko waral mooy chaque jour ñu ngi ci njàng mi waaye dañoo am kilifa rek ba léegi ñu toll nii suba suba suba bu kilifa gi ne woon nàngam suba suba ñu taxaw ci. album bari na waaw waaw ndax Sëñ Tuubaa dafa bind sept tonnes sept te te te li mu def ci géej gi ak li mu suul mu ëpp foofu li ñu gis ñun kon xasaay di mën nañoo xëy genn bu nekk di ci jàng te li ngay jàng am na xasaay yoo xam ne gisagu ko soo xuma la nga di ko yër ndax Sëñ Tuubaa moom moo ni mel. ndax moo ne raamal waraa nay la fadru mis na la wal fadru in rasulillahi xardaaru ngëneel daal ko bëgg ku ne na nga dem sayyidna Muhammad ndax lu mu lu waay di am rek ndax si yonent yàlla Muhammad ci la ci la gën a gaawee waaw lépp daal ñu ngi ci déglu ndigal sëriñ bi rek lu mu jox ndigal rek ñu daal koy def waaw. olofal gi duñ ci faral di jàng lu bari wala yow ci bind sëñ Touba da ngay xool wala di nga xool di nga ba si yàgg génne sa bind bind sa bind bopp olofal taggee ko sëñ Touba radiyallahu taala waaw waaw olofal gi dinañ ci faral di jëf ndax euh, li tax ma dañ ci fara def mooy dafa am benn kilifa gu ma mosoon a am ma mosoon a bay jàng wolofal mu daat ne ma am ku ne yéen de dinañ jàng xisaa te bàyyi wolofal yi am benn ku kilifa gu daanu ne ko wolofal yi mënuñu ko ñàkk bañ a way waaye ne la moo tax mënuñu ko ñàkk di ko bañ a way mu ni sëñ Tuubaa xasaay di sëriñam la ci way muy Seydina Muhammad nee na euh, wolofal yi nag ñun suñu sëriñ lañ ko way ndax suñu sëriñ moo fi def lu kenn defut moo tax ñu bind ay wolofal di ko way waaye xasaayit moom suñu borom su sëñ Tuubaa da ko da koo jël jagle ko Seydina Muhammad waaye wolofal yi nag dañ koo ñëw jël jagle ko sëñ Tuubaa ndax moom moo fi def lu kenn defut waaw loolu daal yaa koy bind sa loxo bopp waaw ñun nag euh, ni nga ko ci waxee léegi léeg ñu bind jox ñu léeg-léeg ñu jékki-jékki suñu xel màcc ci dara jékki-jékki di wayantu rek ndax man damay toog yaag sama néeg waaye deux heures trois heures ma tëdd jékki jëm yàgg rek am lu ma lu ma digal ma daal di wàcc su ma wàccee nekk fa riim koo riim ko ba xam ne jàpp naa gàmm bi maa di si ko sama téléphone su ma ko defee noonu demaat demaat ba jëmee jamono leen dikkal ma maa di ko sama téléphone loolu rek boo ko dajalee na dem mujj gi dina doon ay ay ay album album daal waaw. Euh, jànkat léegi noo leen gisee ndax dañ cee dugal folklore de trop. waaw comme ni nga ko waxoon léegi rek jànkat moom du bon jànkat xosaayit foo ko fekk day baax ndax Sëñ Tuubaa li li li mu defal yonent yàlla Muhammad kenn du nekk ci moom rek di am di am di xolu iñaan wala dara loolu gars yi wax noonu rek waaye ñun ñëpp benn la ñu waaw jànkat du bon. mu jànkat du bon mais ndax jànkat danga war a yër bind yi bala ngaa toog ci bërëb di ko jàng. waaw waaw ndax loolu moom daanaka moo njëkk ndax li tax ma ne moo njëkk mooy xasaa xasaayit moom boo ko bëggee daanaka mën nga xëxee bëgg ko te te boo ko bëggee am ñoo xam mën nañ ko bëgg te demuñu jànge waaye ci biir bëgg boobu ngay bëgg mooy dem ba di la orienté di la orienté ba lépp loo bàyyee loo jàppoon da koy bàyyee ngir gis war xasaayid yi ngay bëgg ko ndax xasaayid yi ku ko ñam daal di nga xam ne ni dara du xasaayid daal xasaayid moom sëñ Tuubaa def li mu def moom waaw wax dëgg yàlla ñi ngi waajal màggal gi te sëñ Tuubaa am na lu nga xool ci màggal gi dama bëgg nga ñamoon si tuuti rek après lu ñu dese si bariwut waaw loolu moom sama xol da ci seet lool ndax màggal sëñ Tuubaa gi moom ñun ñoxuma laa murid sax waaye kurut murid sax war na ko waajal ndax ndax ndax dëgg yàlla màggal gi moo tax ñu mel nii ñu mel tey kon wax dëgg yàlla nañ ko waajal lu baax a baax màggal gi jot na nañ ko waajal sëriñ bamba mooy ku ko moom nañ ko waajal màggal gi jot na nañ ko waajal sëriñ bamba mooy ku ko moom nañ leen ko waajal si anta mbakke borom daaru waajal na màggal geey sëriñ fallu mbakke borom ni nekk saam waajal na màggal geey si abdulaay borom mbelal màggal na waajal na màggal geey sëriñ saaliyu mbakke borom jamono waajal na màggal geey muritoo nanu waajal màggal geey jëm Touba te xam ne mooy ndigal li sëñ Bamba nee na Touba ku fi ñëw ma tàggale la ak bàkkaar soo faatoo ma jox la yonent yàlla Muhammad mu tàbbalaal jannatullaahi xanaa xamoo ni suufu Touba ku fa ñëw seram araamal na sawara ngir waajal bisu màggal geeyi màggalu Touba mooy bis bi gën ci biiri bisi ku ko waa waajal li nga am xeeral maraam ngir sëñ Bamba mooy borom màggal gi. am na solo yëpp mais sa air bopp waaw air bi ñu ngi koy togg waaye dina dina dina dinañ ko génne du yàgg. ci màggal gi. waaw si li ma woon sànq rek ñun moom ci ndigal sëñ bi la ñu wéyee rek sëñ bi bu nee bu nee tey rek ñu def tey ndax ndax li tax moo ko mooy nit dina bëgg dara waaye xamul ba xam baax na ci moom wala baaxul ci moom. wax naa ko léegi ci biir wax nee naa ne am kilifaay li am solo ndax boo amee kilifa lépp loo xam yaa ngi koy def moom dina xool bu gënee dina ko wax bu gënoo dina lakkat defal nangam ak nangam looloo war a ñun ñu ngi ci liggéey rek ñu ngi liggéey rek waaye moom saa yu ne nangam rek jot na rek ñu àndam nangam ndax ñun ci ay tànkam la ñuy dox fi mu toll nii tey tey bu ñu woon tey ji Touba ilaa Touba tey duñ duñ fi duñ fi fanaan dañuy dem daal dem Touba léegi waaw ñoo ngi sant bu nag. di ñaanal sëñ Amadou Mbacke ni ma ko waxee rek yal na yàlla guddal fanam te wéral ko di ñaanal waajuram wu tedd wa sëriñ Babacar mu kàbboor yal na yàlla defal ko jàmm te guddal fanam di ziar baax sëriñ Sidi Mbacke yal na yàlla guddal fanam wéral ko di ñaanal waajuram wu baax ba moom it di ko ñaanal suñu borom defal ko jàmm baax te wéral ko baax yokk ay maqaamam darajee suñ Tuubaa xasida yi suñu xool sedd na baax a baax a baax yéen waa télé bi it ñu ngi leen baax di ñaan yàlla na yàlla def daal télé yi gën a gën a gën a bari ci darajee suñ Tuubaa xasida yi ñu ngi leen baax a baax. comme ni ma la ko waxee ci màggal gi lan ngay dénk chauffeur yi ak ñi nga xam ne ñu ngi jógee bitim réew tamit léegi pour ñëw ci màggal Serigne Touba bi lan ngay dénk ñi nga xamante ni taalibe yi nga xamante ni ñu ngi ñëw Touba nan lañu war a mel ban melokaan lañu war a indi Touba. waaw màggal gi nag Serigne Touba dafa wax ni kenn ku ci nekk booy ñëw na nga mel ni yaa ngi dem aji ndax lépp loo xam ne dañ koy tere. ci dëkk bu tedd boobu muy Màkka dañ koy tere fii ci biir Touba ndax am na xaside gu mu bind nag kataballahu tabaraka wa taala am na bayte ila Touba wa fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne bëgg ngaa aji te amoo loo mën a aji te amoo doole ji nee na boo ñëwee biir Touba soo ko fi defee ñaan ko fa ñu nangu saaj kon màggal gi ku ciy ñëw rek na nga xam ni da ay farata moo tax du ñëw ndax euh, dama deg ci kilifa ñu ni aljana de amul bis waye bis sëñ touba bi say delsé ñepp xamni amna lu xew muy magul sëñ touba gi kon ñi ngi wax ni kep ko xam waji ngi waaj fa ñew rek muy ci goor mu jigen na nga fexé fa ngay dal nga fexé loo leen mën yóbbul leen soko mënul na nga fexé jaay jaay sa doole manam nek ci liggéey ba boko mënul bo déé bay ñibbi dara la nga bayyi ba fajar jot ba ñepp leen ñepp ngi dal la nga juk bale kër gi raxas ndab yi defar lépp ba mu lenn ku jug ku gi ku jug dina ni waaw comme moo defar lii nga daal di mën a dem ñibbiwaat fa nga dëkk ndax loolu mooy màggal gi chauffeur yi tamit ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm ñu daw ndànk ndax suñ fal nee na daw ndànk dal ndànk koo xam ni xëy nga dem dem yóbbi voyage boo ñibbi ci da ngaa war a noppalu jox keneen mu dawal te te te màggal gi buñ ko def loo xam ne wutukaayu xaalis la ndax bo beugé ni li ñakkon ci at mi yëpp dama ko bëgg a amaat ci bisi magal gi tax ngay tel tel loolu day tax mom ni ay galankor ndax mourid ñom dañoo xër waye dañ def nank nank te xam ni sëñ touba mom mom mom yoon la da ab dekk la waye Cheikh Rafal mo yoon wa jëm waaw ndax koku mënu ñëkk ñak bay tuddu ndax yoon wi yoon wi neena neena ciowli ciowli mana a Cheikh Rafal mom danaka nee bo dugg Touba Lamp fal ngay njëkk seen waye bo génn Touba Lamp fal ngay mujj seen ndax mam Cheikh ibrahim Fall kooku mën naa ni njëkkute ñëw ci kër Sëñ Tuubaa waaye jëf ji ak ak ak pastéef bi ak ak góorgóorlu gi moo ko tax a yegg tey fii mu yegg tey ndax ndax ndax am na ku mosoon ñëw ci Sëñ Tuubaa ne ko damaa bëgg a mel ni maam Cheikh Rafal Sëñ Tuubaa ne ko maam Cheikh Rafal sama sama tànku mag bi laa ko teg daal di koy fallax waaye nag fa mu jotee nag góor yàlla yeggatu kon kooku moom kenn moom maam Cheikh Rayou Fall. waaw war nga cee xuus ci bu baax. waaw Cheikh Rafal moom daanaka moom mooy lépp moom. waaw Lamp Fall moom képp ku ne ci moom ah wax dëgg yàlla ndax bunt bi sëñ Touba moom ku bëgg am ci moom dara foog nga jaar Cheikh Ibrahima Fall ndax ndax ndax ndax li ko waral mooy Cheikh Ibrahima Fall nit ñi daan ñëw fekk sëñ Touba di di lekkandoog moom ak di naandoog moom ak di bokkak ak moom laluwaay wu wu ñuy dalloo Cheikh Ibrahima Fall ñëw dindi fi loolu lépp nag daal loolu moom kenn du ko fi defati ndax kii ma gis kii ma gisee mat a xam te dama ko jox samay mbir. mom war ma man a ci yalla sun borom taala ko taala kon man Cheikh Ibrahima Fall lu way am seigne touba rek war na war war war na ko sante wa ndax man dama ko beug beug go xamni man sama lepp mom man Baye Fall la wa Baye Fall la te ñima ma Baye Fall la suma ci wax mom li man wax seigne touba may téye sama bopp sax Cheikh Fall mënu ma ko ci wax non ndax dama beug lool wax rek seigne touba Cheikh soppe yi leen wax. ah soppe ma ngi ni di nuyu bax di leen siyaara di leen ñaanal yalla sama soppe bu njëkk nak waaw mooy sëriñ Amidou Mbacke mi nga xam mooy sama kilifa. Euh, sori na ci yow de. waaw kooku dafa sori ci man ndax li ko waral mooy. ban jaar jaar jaar bi ñu am mooy dañoo yàgg te li sëriñ defal taalibeem mi ngi ma koy defal damay jékki ñaari tuum yàgg sax mu woo ma téléphone ne ma ci loo nekk man ko Mbacke maa ngi nii sant di la gën a bëgg mu daal ne ah loolu de baax na lool. daal ne ma euh, amoo ci yéen yitte yoo ne man ko mag ay eh, kay soxla moo dara lépp maa ngi sant rek ndax moom bëggul sax may am ay problème wala nanga day jékki-jékki ma toom yàgg même tëbasi gi ñu génn euh, génn na xar moo xamante ni daanaka na mu toll maa ngi sant yàlla bu baax ah daal ci dama na nga ko fexee rek yóbbu ci kër ga daal di koy jox soxna si yooyu te teraanga yooyu ku la koy defal kooku mënoo mënoo koo fay te koo xam ne buy dem yóbbaale la boo xamee lu baax wax la su déggee safaan ba wax la nga moytu ko kooku mënoo ko fay ndax alal daanaka neex na waaye kii lay wax dëgg di la jariñ ci lu baax mu ëpp alal te moom sama sëriñ la waaye dafa dox ak man ci mission yu mel noonu ndax tey jii siiw naa nit ñi xam nañ ma moo naa féttéeral rek nekk ci yoon bi dox sama yoonu bopp waaye boobaa est man ëllëg dinaa xam fan lay teg sama tànk waaye boo gisee man laa ko seen ginnaaw rek nekk ci ñoom xëy na sëñ Tuubaa ak Cheikh Rafal ak maam di Cheikh Anta ndax daana wax naa ma Cheikh ma ne ko Mbacke mun a ku yàkkam du ànd man ku yakkan do and ak man kon koku amna lu mu dëxaañaale wa ñu koy ñaan su borom guddal fanam ti ko wa sama soppe premier dal, moy sama serigne waye moy sama premier fans ndax daf ma bëgg lool bàkk serigne touba ak ak rakam ju bax ji serigne Sidi Mbàkke nga xamni momit ndaysan daf may jël fi di ma yóbbu ba Fimela jóge dem ba Ndangaan sambu difa def ay programme lolou dafa yagg nit bi nit ki su la bëggee mënoo def lu dul jàpp ko te ñoom sama diggante ñoom bariwaat na jànkat yoo xam ne dañuy tàmbali nekk ci benn kilifa ñu xam ne nag moom dem ba ci biir affaire yi dox ñu commencé mel neneen ak neneen waaye man maa ngi ñan ci barkeb Sëñ Tuubaa yàlla bu ma seetaan ëpp doole yàlla bu ma seetaan fëq yàlla na ma yàlla bàyyi ak ñoom ba li ma bëgg a liggéey Sëñ Tuubaa sama diggante ñoom ma def kook ñoom ci barkeb alxuraan jërëjëf ayca mi ngi noonu tey Cheikh Diop lañ lay indi di tàggat ci yonent alayhi salaatu wasalaam waaye bokk suñu waa kër maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul waaye itam bokk ci waa kër euh, maam Cheikh euh, maam Cheikh Anta euh, borom Daaru Salaam macha allah dañ koy bàyyi mu tàggatoo tàggoo bu dul tàggoo rek ba ci bind Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ñu tàggoo incha ci beneen émission incha allah ayca tàggul te bul yàgg nag. <laughs> yaay. jënn waaye eh, wax leen yow yaay jënn waay rakki ma jaara sirib jënn Ibrahim daamal daarooy bay Cheikh Modou Awa Balla mam Cerno bay Cheikh Modou Awa Balla mam Cerno baayu baayu Cheikh Adey bay bay se khade baayu roqya baayu fatima sering bamba sering bamba ya wai, jennu waaye wax leen ya yaay jënnu waay wallaay dëgg la moom rek moy jennu waay yalla nko yalla fayal waaw ñu ngi sant bu baax di tago tago bu ndax euh, li ko wara moy suñu digganteeg yéen tàmbali maa bi rek do nga ñaan yalla ñu amaat yeneen émission yo xam ne day gëna yaatu té it dama lay jox rendez-vous tamit ngeen fexé sét suñu kër sëñ amadou mbacké mu sëñ babakar mu bis bobu nak day ma xol bis bo xam ne am ngontu la koy def ngeen ñew señ bi daal di ñëw Baye Fall yi ñew Murid di ñëw ñu def am ngontu mo xam dañ ko sante si antamak borom daru salam te xamna ni bu la ñew mom moom ah waaw foofu dina dina ki mo wax deug yalla tawféex jërë ngeen jëf yàlla yàlla defal jàmm rek Sëñ Tuubaa ayca mi ngi noonu seen émission taaru diine ji saa su ñu ko defee rek euh, di seet si jànkat di takk ci yonent alayhi salaatu wasalaam te ñu fii ci Sam-Sam 3 seet ki nga xamante ni mais Cheikh Diop ñëwoon ci benn cant ñu amaale occasion defal moom émission taaru diine ji ndax li taaru diine ji rek incha allah rabi ci la ñuy nekk ndax euh, mooy sunu tànk ko defee saa ne ñu leen ziyaar euh, leen wàcce seen wàccuwaay leen ñaanal jàmm waaye tamit di ziyaar kilifa xam moom lañ fekk fekkoon moom lañ toogal fii ñu leen ziyaar bu baax a baax di sàkk su ñoom ñaan waaye tamit di wax wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Elvision Média abonné bu alhamdulilah duma fàtte nuyu sama caméraman Balla ak DG la àndal fii ci Samsam 3 macha allah